rendibilidade ñaadiku yàlla baaxal mu yëngatu ci wàllum paj yàlla suñ borom bi subhaanahu wa mi dara teewul kàttanal ko muy def di dindi am na ay cuuraay yu baax ci seytaane ku seytaane sonal mbaa sax jinne boo ma seet see tàggoog moom yow mi am faru rab mbaa coro rab ba mu tere laa sëy boo ko seet see mu teqale la ak moom nga daal di am jëkkër ci ni mu gën a gaawe bu dee góor nga nga am jabar ci ni mu gën a gaawe mbaa foo toll di mer te kenn du la def a koy da ngaa dëkkee fawee sa bopp tubaab naan ci mënatoo koo bàyyi boo ko seetee mu tàggale la ak moom impuissance sexuelle mu ni ma maa ci gën a gaaw yow mi nga xam ne dangay ngay gént di tiit boo ko seetee mu tàqale la ak moom mu ni ma nag ci lépp ci alxuraanu karim bu tedd bi laay sukkandiku ñaan ci kartanu yàlla ak mbaa xam mu nangu ah yéen jig ji kaay ma wax leen am na ay cuuraay yu baax ci yéen ay cuuraayam dañoo gën nemmali ndax soo ko taalee ci néeg bi néeg bi day neex ngeen juboo yéen ñaar kër gi neex maanaam cuuraay li daal day tax ngeen juboo sokkorloo yow mi dëkk xuloog sa jëkkër subaa ngoon gu dëgg bëccëg dawal jënd cuuraay ah cuuraay yu jàmm ji yegsi na na waa sax nga dëkk ci kër goo xam ne dañuy xeex suba ngoon guddeeg bëccëg xuloo guddeeg bëccëg boo ko taalee ci kër gi jàmm sax fa te dootu fa jógee yow mi nga xam ni cat dalaa jàpp loo yaakaar mu tas say mbir lu ci siiw yàqu am na cuuraay boo xam ni boo ko cuuroo loo yootu jot gaawal gaaw ngeen woo ko ci 77 677 77 08 xam-xam day noppi ndax it xam-xam rek ak a ñor ngeen jariñu rek ak a ñor sëriñ nag tey xam naa danañ la xaw a téye tuuti mm-hmm. macha allah ci jëm ci wàllu actualité ngir saa su ne réew mi day yëngu mm-hmm. te wax fa dëgg yàlla ndaw ñi père mm-hmm. danoo soxla danoo soxla euh, référence mm-hmm. danoo soxla dëgërlu mm-hmm. macha allah jamono ji ñu gis ni sëyu célébrité yi bare na trop trop tey am na démb rek yaakaar naa ku nuy wax ajaar te mu ne ci série ak benn patron de presse takka suñu benn doyen <laughs> mu te mu nekk leeral tey mu mel na gars yi dañuy nëbb léegi euh, ngoro yi da nga xëy suba rek dégg mu éclaté ndax it Moustapha Naam ak Virginie fi mu ne xam naa kaakat yi moom yooyu da feebar moom dañuy xëy suba rek dégg takk na ko te duñu yëg fenn lan loolu Cun fa tabaarakallaahu dañu yeex neub nëbb bir mbir mi ci neub la am yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moni de len neub ngoray te feñal sey <laughs> aw aku génn luñ fenyal. feñal may doxat diw moy lan <laughs> boko takul ñepp xamni xam ne diw moom nekk di ku ne da ngay rek ko xamni ni nan man ku ñëw wax dem dedet ku ñëw wax nga siwal ko mu dem cuun wal aynu xaq wal famu xaq mhm. te cuun dafa am ñu yàlla bind kenn ku ne am num la bindee ci almusawiru lay delluwaat ba tey sax wallahi am na ñoo xam ne seen mbir lu ci siw yàqu bind suñu borom la dogalu yàlla la mhm. am na ñoo xam ne seen mbir feeg mi ngi siw ñuy gën a avancé mhm. yow nga nekk koo xam ne seen mbir lu ci siw yàqu far boo am estatu ko mu dem <laughs> am na koo xam ni estatu lay jiñ faru rabam estet yooyu dàq yooyu dàq yooyu dàq am na koo xam ni fa tabaarakallaahu cuun bis boo nee dama ne la nga siw nga naan ku ñëw wax dem yaa dàq ñëpp ku fi nëbbul sa diggante ka nekkal saydu am maa la ko wax tey yonent bi la yàlla wax maa yantiqu anil hawa ndax lan in huwa ilaa waxan yuuxa mm-hmm. yonent bi du wax lu dul ci bànneexu bakkanam mm-hmm. yàlla wax na sax lu yonent indi leen jàpp leen lan moo tax ndax yonent bi dañ koy ilham muy ñuy wax mm. nee na nëbb leen ngoro yi mm. te feeñal sëy yi cun nag ñun dañoo nëbb dañoo feeñal ngoro yi <laughs> mooy sunu ngoro yi ñoo ko wax sunu xarit yi uh-huh. sunu ngoro yi te baadoola la mënta paase uh-huh. nga nekk góor mu invité la restaurant ngay dem ànd ak sa juróomi copine bari na cuun yaa siiwal sa génn yaa siiwal sa génn yaa ci boole baadoo la te ku ne statut partagé ñu nan faru diw beñu invité moo tax ci far rek lañu yam. ta xali yi jigéen ñi ku ci ne sa statut 200 personnes da kay gis. 5 personnes muy 1000 personnes yo xamna ni diw de génn ak diw. lolu moy chat chat chat total lolu chat lolu rab dikagul ci benen bi ci dess mu nekk yàqkat yi. jaxasekat yi. cun am na ñoo xam ne fii ci Sénégal. Uh-huh. seen métier xam nga lan la fi. Uh-huh. moy bëggante lañu ñuy gis ñaar ñu bëggante. xana tayunu ko de. dañu febar febar iñaan la leen japp Oh. bu ñu déggee ku wax je t'aime da leen di déranger. ndax <laughs> ñoom kenn nobu leen nag foofu. moo tax xam nga lu ñu def. <laughs> Uh-huh. bu ñu gisee Cheikh mii nopp diw. Uh-huh. dañuy dem fa tabaarakalaa ci diw ni ko yow loo gis ci Cheikh. xam moom dañoo gisul ci dara ci moom ci dara uh-huh. moo tax foog ne kenn gisul <laughs> waa kon ku mel nii. ci dëkk bu ñu nekk. am na ñoo xam sax dañuy dëddale. danañ di jaral dem ci sëriñ. waaw te jigéen dañu bàyyi mbaraan. baaxul cuun jigéen juy mbaraan amul ngor. koo bëggul bu lekk alalam. wallaahi. bare jigéen ñu naan dañ koy takk am na góor gu loolu ci néeg di jooy. àq gi da ko mën a amel nit. maakaar mbaraan gi ñàkku mbootaay la. waaw ñàkku mbootaay nag boo ko xasee ba lekk. moo tax jigéen ñu bari mënuñu am doom. mbaraan. cuun jigéen juy mbaraan góor di lekk alalam. Mhm. fa tabaarakallaahu te nobbu ko. Mhm. parewul pour sëy moom bis bu ko waree dem sëy jeeg keneen cuun problème très sérieux lay pour am doom. maa la wax loolu. cuun àq yi nekk ci biir. Mhm. xanaa xamoo naa la indil euh, naa la indil benn waxtaan sax boo xam ne. Mhm. mooy nit ñu bari lu tax ñu tëju cuun sëriñ si nañ leen jàngalaat. cuun sëriñu Sénégal gi boo leen laajee tëj danaa la diw cata ko tëj diw raba ko tëj. diw dañ kaa liggéey ñett yi kese fi ne. am na yeneen yu man tëj ni cuun dëggee sa ñaari waajur day tëj nit sëriñ bu ko xamul bàyyil ñaan. Cheikh Seydi Hadji Malick Sy nee na di jaar sa turu waajur bu góor wala waajur bu jigéen di ko sàllawlu cuun day tëj nit sëriñ bu ko xamul bàyyil ñaan cuun àq day tëj nit liggéeyal cuun war ko fay fayoo ko mhm. weer bu dee nga ameel ko bor beneen weer bu dee nga ameel ko àq beneen weer bu dee nga ko balaa mooy mat fukki àq yow dootoo yorti loo lekk moo lay tane faf moo lay tane mhm. bari na kilifa yu bari directeur société yu bari hmm. dañoo xëy daana ñu naan la car la dañ laa liggéey déedéet yaa yoreel ay nit ak sa employé yi bu ci amee nag kenn ku ci doy waar nag ñaanal la yàlla fa ngay jaaree xalku eh. ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaan ku ñu tooñ yàlla du ko delloo mukk la cuun kon est ce que cet kese moo fi nekk di tëj déedéet ce que rab kese moo fi nekk di tëj déedéet cuun liy tëj dafa bari hmm. day tëj dëngee sa ñaari waajur day tëj cuun fa tabaarakallaahu cuun nit ñi dañoo xamul sax cuun ba Dakar gii bari na gone yu bare fa lañ yàqu fan xanaa xamoo ñi ngi gis ñuy sol jasneer yi du ñu waaja Dakar waaw loolu Dakar moom nanaal dëkk boo xam ni moom day ndax nit ba ci climat Dakar day naxaate <laughs> Dakar ngay xëy mu sedd balaa ngoon mu tàng Chun ñi nga gis ni ñuy sol jesneer duñu waja Dakar waaye Dakar yep moy borom bu bu wayef sol jean pantalon ñoy ñoy Dakar wala ñu sol super sang kami xamni ne ba la robee yéene leen sarax te sëriñ dem nañ sax bo du dunte kurus kurus euh, électronique ñoy ñoy waja da ci ciy gis koo xam ne mbubbam daa wayef nga romb toroxal ko toroxol ko xam ne keroog nga yaq la ilaha illallah barna borom jesneer boy boy boy sukkal diko mi ngi yor jona ba ko wara sangul moo tax daal dañ lay dañ lay xamal ni la mbubb bu laab ak mbubb bu set mooy lan cun gaa yu bari seen mbubb laab na waaye setul seen mbubb yi set na waaye laabu gaa yu bari da nga kilifa goo xam ne jandeer ba muy sol mbaxane ba muy sol mi ngi yor janaba boo xam ne sangu ko waaye nga daje koo xam ne mbubbam ma nga tilim yëree ma nga tilim mhm. cun tam wallaahi bu ne yàlla dama ne mu ni yor telephone koku kooku nag nga dajeeg moom toroxal ko ah yakku nga. yakku nga des fois may ñaanal nit ki mu na man sëñ bi wër ba tas mu ñew ma genn loo sarax firi gu bari ni ko boo eggee demal jox ko say ak juróom-benn junni. muy xalaasu ba naa ma ah man woowaan nañu wala say mbir dekanté wu ciun koku yaay ya jé ko jéppi boo nekkee sa yaay am salaire te du ci dund ciun ngay wër sëriñ ci ci xeex ngay mujjee ak sëriñ si dañu mëna a fen ci mënuñu fen ya defu li la bo fekkone serigne bu am ijaba sax. cuun du la mën ñaanal yalla mu nangu dañuy ñaanu ci yalla ak ñaanu serigne ban mo gëna for ak ñaanu ñaan ñaan ci yalla waxuma la serigne ci de. <laughs> ñu cuun man ñi tax ñuma wax. wax deug yalla su ma naan sëriñ ñii taxuñu wax. dañuy ñaanu ci yalla ak ñaanu wajur ban mo gëna for ñu ni ku amul ñaanu wajur do dajje ñaan nitu ci yalla wallahi wallahi motax kon bala ngay ak serigne muy ñaan yalla mu nangu cun fa tabarakallahu sa wajur day ñaan wallahi da ñaanal ba pare dajek ñu ci yalla mu ñaan la yàlla kon gune damay faral di wax naan buma dajek man goné goné ma sama yaay gërëm na la buma ko ñaan damay ba xamni ki daf ma simplifier wala ku fi indi wa ku fi indi sama dom ji señ bi dama la ka denk ah bo ñewé nak wax deug yalla bo fekkon nak may 100 kérok 200 lay do ndax da nga yik ali nek ci man mhm. la ta'budu ila iyaahu wa waalidayni ihsaanan bu len jamm ku dul yalla waye seen ñaari wajur mhm. amna ko xamni nu la nit mëna gàtt xel naan man sama yaay sama premier non nit da la koy wax sama yaay momay liggey <laughs> ci lolu bu mhm. yak kat jaar na fa deudal leen wallahi waye inshallah rabbi rek liñuy ñuy wax mhm. mooy nañ nëbb ngoro yi mhm. te feeñal sa yi te yàqkat bayyi bàyyi gis nga wallahi ku genn ak yow ci sutura dalay tak kenn ci dara wallahi waaye insha allah rabbi ku génn ak yow ci weer. des fois ñu ngi dégg naan góor bu la bëggee dalay présenté. wax la rek wax la rek. te Serigne nag xale yi boo leen présenté wul dañ naan bëggoo leen. déedéet am na looy nëbb am na looy nëbb. cuun. Mm. mbaax ngay nëbb. cuun xanaa xamoo gel bu ñu foofee rek la ñuy présenté. xay déedéet cuun li baax ci yow génne woo ko li bon ci yow rek ngay génne. cuun temps bi dañuy xoj bu ma wax loo cuun li baax ci yow génne woo ko te xale jigéen ñi xamuñu ku leen bëgg ku leen nax am na jigéen yoo xam ne artiste lañ bëgg am na jigéen yoo xam ne boo leen déclassé xam nga lu ñuy bëgg yow nga ñëw nekk jeu de film ay bongoman ñëw ay wala déedéet ay fleur ay piano ay poème te loolu dara ñëpp ko mën waaye je bu sincère la gars yi ma réalité gi dëgg gi <laughs> am na jigéen ñoo xam ne moo ne leen dama laa bëgg rek noppi ca ñu naan ah man moom bëgg rek loolu kese yomb na te ci wax ju dëgg moo gën foofu junni jëf yu dëggul góor mën na laa jëndal hamburger te bëggul góor mën na laa jëndal pizza te bëggul cun xale jigéen ñi du dañoo jël mbëggeel te xamuñ lan mooy mbëggeel waaye waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatu. wa taala mi dara teewul kàttanal ko muy def di dindi am naa ay cuuraay yu baax ci seytaane ku seytaane sonal mbaa sax jinne la nga daal am jëkkër ci ni mu gën a gaawe bu dee góor nga nga am jabar ci ni mu gën a gaawee mbaa foo toll di mer te kenn du la def dara sëriñ jibril ñaan ma loolu rab a koy def boo ko seet mu dind ko ba mu daj yow mi nga xam ne da ngaa dëkkee sa bopp tubaab naan ko masturbation nga dem ba accro ci mënatoo koo bàyyi boo ko seetee mu tàggale la ak moom impuissance sexuelle mu ni ma maa ci gën a gaaw yow mi nga xam ne dangay ngay gént di tiit boo ko seetee mu tàqale la moom mu man ak ci lépp ci alxuraanu karim bu tedd bi laay sukkandiku ñan ci kàttanu yàlla ak mbaa xam mu nangu ah yéen jig ji kaay ma wax leen am na ay cuuraay yu baax ci yéen ay cuuraayam dañoo gën nemmali ndax soo ko taalee ci néeg bi néeg bi day neex ngeen juboo yéen ñaar kër gi neex maanaam cuuraay li daal day tax ngeen juboo sokkorloo yow mi dëkk xuloog sa jëkkër suba ngoon guddeeg bëccëg dawal jënd cuuraay ah cuuraay yu jàmm ji yegsi na ba sax nga dëkk ci kër goo xam ne dañuy xeex suba ngoon gudd ak bëccëg xuloo gudd ak bëccëg boo ko taalee ci kër gi jàmm sax fa te dootu fa jógee yow mi nga xam ni ca dalaa jàpp loo yaakaar mu tas say mbir lu ci siiw yàqu am na cuuraay boo xam ni boo ko cuuroo loo yotu jot gaawal gaaw ngeen woo ko ci 77 677 77 08